couple yi góor ak jigéen di sëy mhm. ci benn ak ñaari at ba jëm ñett mhm. teew am doom mhm. ñëw exemple ci sëriñ bi ñun buñ ko xoolee exemple ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko ñu jël suñu wàll mais bu fekkee itam ku góor ki dafa teew am doom mën nañ ko defal bilan spermogramme euh, soxna Diallo maa gi kontaan ci dalal bi ngeen ma dalal fii ci la chaîne sénégalaise muy RTS 1 di nekk fi tali askan bi mhm. ñoo ngi leen di jaare bu baax ci invitation bi nga ñu invité mhm. tey nag ginnaaw dañ fi ñëw ci suñu liggéey ñëpp xam ñu ci médecine traditionnelle muy médecine africaine comme ni ñu ko expliqué sànq mhm. kon ñun Afrique a perdre suñu valeur traditionnelle kon sëriñ warul mën lépp man mënuma lépp waaye dafay fekk ni xëy feebar yi ñuy faj bu ñu ko mën a géey limite dana xaw bari dana jël temps waaye dañ ci tënk rek ci li ñuy spécialisé comme ni ko docteur Junge tey ci thème bi tey bi infertilité de couples mhm. muy couple yi nga xamante ni bëri na ay jafe-jafe yi ñu am ci wàllu am doom mhm. du ñu wax sax ménopause wala du ñu wax sax euh, stérilité mhm. mais dañuy wax infertilité de couples ci ku góor ki ci ku jigéen ki ci doom xale bi ndey gi ak accouchement yi ak euh, perte accouchement yi muy avortement yooyu yi ci nekk yëpp yaakaar naa ne bu ñu ci tënkee rek dinañ ci mën a waxtaan ci kàttan suñu borom lépp lu ñu nekk ci moom dañ koy seet gëstu ko ba mën a xam ne kii lii ak lii moo ci moom

ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko ñu jël suñu wàll bu fekkee ku góor ki itam docteur bee ko war a jël muy urologue bi moom it mu def ci waaram couple boobu en général bu ñu ko traité même pas ay weer yu gàtt suñu borom dana ci def barke mu sax parce que problème boo gis am na solution dafay làqu rek mais bu fekkee nit ki kooku moo ëpp chance wér que ki nga xamante ne exemple dafay dem ci benn pàcc bi kese ki nga xamante ne dafa ñëw muy jigéen bi nga xamante ne moom dafa yàggoon na taxaw tey jii bu ñëwee ci yow ba paré mhm. euh boko sété ba paré lan nga koy wax pour mu lan ngay sét si moom ci nga ci nga xamante ne day dem ci charge femme bi lan lan la fay def. li ma koy njëkk demander moy est-ce que am ben échographie bobu dana mën a détecter lépp li infection bu nek ci jigéen bi. Mhm. te dina mëna tax ndax ku jigéen ci amul kiss de l'ovaire. Mhm. ndax amul trompe yu bouché. wala amul fibrome. wala amul genre feebar yu ni mel mhm. bu fekkee dafa am genre feebar yooyu ñu xam ni kii sage-femme bi ko yeyoo ñu jox ko ko mhm. bu fekkee itam fibrome bi moom opéré woon na ko te dafa dellu siwaat en général mhm. fibrome ñu bëri ci ñi ko am ndax fibrome de l'utérus lañu wax dañ koy dindi mais en général bu ñu ko defee intervention chirurgicale bi quelque temps après wala quelque année après day dellu si day dellu siwaat léegi en ce moment là bu fekkee dépassé wul cinquante cinq millimètres

dañ lay yóbbu ci urologue bi mu xool bu fekkee dafa war a jox garab wala bu fekkee moom dafa am varicocèle pour mu defal ko intervention éthique dañ ciy jàpp ñu bàyyi ko urologue bi mu liggéey liggéeyam ñu ñu xool lan lañ ci yàlla rek ñu def ko ndax am nañu ay complémentaire d' aliments yi nga pour góor gi nga xamante ni mu ngi séeg soxnaam mënul am doom ñu jox ay garab daloolu yàlla def ci barke am na ci benn couple bu mu ci mujj am sax ndaw si mi ngi nekk France Marseille mais yàlla dafa defoon ci jamono jooju mu séeg mu séeg euh, ñu xool ko foofu ñu ni ko sa benn ovaire nga manqué le mm-hmm. par miracle nga mën a am doom tubaab yi ni ko essayé nga dellu sa dëkk nga xool est-ce que ñoom amuñu ñu ci mën mm-hmm. mais yàlla ba mu ñu booleeg ñoom ñu ànd ci ak suñuy partenaire yi di docteurs yi mm-hmm. yàlla may leen loolu ñu àndandoo lëkkaloo wax dëgg yàlla suñu borom may nañu fii ci Sénégal kon nag wax dëgg yàlla daal am nañ ci am nañ ci daal ay résultat yu am solo